bisub altine 5 avril 2021 dañ fee tasewoon def assemblée générale mu tombeek ba ñu feetee suñu indépendance ci bisub démb bi waaye nag bis bi dafa nekk bis bu rëy ci ñun bis bu am importance bis bu xaw a euh, doy waar ndax day marqué ki nga xam ne moo ñu jiite woon nekkatu fi maanaam soxna maam Xari Mbàkke mu nekk koo xam ni ci dayaam ci mën-mënam wax dëgg fa yàlla def na lu rëy pour association bi kon remplacer ko du yomb waaye nag daan nañu jéem daan nañu jéem ndaxit it nag rasiyaat lay dooleem du kaka jiite la war a nekk dooleem mooy maanaam liggéey bi ñuy liggéey li muy tekk ci wàll ndawum réew mi li muy tekki ci valeur ajoutée bi muy indi li muy teg ci koŋ-koŋu ndax fii ci Touba ay ndaw ay góor ay jigéen ay kilifa diine dañoo inventé benn liggéey ba nga xamante ne ni ñu ngi ko tuddee sagalum diw artisanal ci Sénégal liggéey boobu nag waa ANSD bi ñu ko saytoo 2017 2018 def ci rapport dañ ni ci at moom nga xam ne sax ñetti weer la ñu liggéey créé na 4172 emplois généré 22 virgule 21 milliards chiffre d'affaires daal di indi ci sunu PIB sunu koŋ-koŋ 0 virgule 1 pour cent loolu su ma koy xayma day mel ni at moomu milliard bu suñu réew am ci koŋ-koŋ million ba ñun ñoo ko ñun ñoo ko tekki yaakaar naa milliard am na bari nañu ko am waaye doo gis ku sànni million kon liggéey bi am na solo lool. ah équipe bi nga xamante ni nag ñoom ñoo ñoom la ñu fal tey ah te man mi nga xamante ni man la ñu jiital ma àndi ceeg ma membre bureau bi yëpp. am nañu ab sas am nañu sas waaye nag yaakaar nañ ni bu ci ñëpp jàppee loolu di dinañ ko dinañ ko obstacle yooyu dinañ ko surmonter Rasiaat nag deful politique waaye nag dañoo am gis-gis dañoo am gis-gis bu rafet ci gis-gisu président Macky Sall gis-gis boobu mu firndeel ko ci plan Sénégal émergent ndaxte plan boobu moo tax ñu ñi ñëpp ñu am fit am am courage am yéene investir ci secteur transformation euh, bi nga xamante ni ci leen nekk waaye nag foog ñu wax leen ni ci jamono yii ñuy wax ak yéen suñu liggéey bi daa am ay gàllankoor ndax ñaari at yëpp liggéeyuñu ñaari saison yëpp liggéeyuñu te loolu lu ko waral mooy daf cee am ay gat yoo xam dañ fee ñëw la ñu waroon a liggéeyee ñu yóbbu ko seen réew ñun ñu toog amuñu lu ñu liggéeyee loolu nag muy nekk lu lu rëy. ndax état bi nag ñi ngi koy ñaan mu jubbanti loolu ba accord bi ñu am ak Chine mu xool nu mu koy jubbantee ba ñun duñu teree liggéey ndax kat dañ ni bala ngay laax jaay laax lekk te loolu bien que nit ñi dañoo yaakaar ni day profitoo baykat bi waaye ku am gis-gis tuuti di nga xam ne baykat bi mi ngi ciy loru ndax fii may wax ak yéen baykat bi mu ngi jënd litre bu diw ñaar téeméer ak ñaar fukk te bu fi gerte gi desoon daf koy jënd six cent cinquante ba sept cent francs kon yaakaar naa béykat bi mi ngi jooy te li kay tax a jooy mooy avantage bi ñu yaakaaroon ne mi ngi koy am ci jaay gerte bi mu jaay chinois yi fii may wax ak yéen béykat bi wóoru ko ndax dina am jiw te ku ne xam ne ni jiw moom bu amut ah mbay du mën a amaat te béykat bi fii may wax ak yéen am jiwam wóorut parce que gerte gu baax gépp dañ ko yóbbu bitim réew kon yaakaar naa état war naa am vision boobu xam ni lii ñuy def du baaxul ci béykat bi baaxul ci ñun baaxul ci Sénégal donc ñi ngi woo président de la république parce que ñëpp gis nañ ni mu ngi woote pour ndaw ñu liggéey ñëpp mi ngi woote pour ñu def consommer local ñi ngi koy tàllal loxo wax ni ko kat fii nag wax dëgg fa yàlla woote boobu daal ñun ñu ngi ko ciy xaar pour que ñu jubbanti li ñu war a jubbanti pour que ñëpp mën a liggéey pour que Sénégal jëm kanam. ñun ñu fi nekkoon dañoo am yeneen liggéey bi présenter suñu équipe équipe boobu nag mbooloo mi ñu ci ëpp buñ ko rejeté woon heure bii kon ñi ngi wax ñeneen ñu fiy nekk waaye dañoo def élection te ci démocratie leen nekk def sama def sama bureau ñoo ne lii laa leen indil mbooloo mi d'accord mais man defuma loolu ay nit laa woo lu mat fukki nit ak juróom ñu toog waxtaan bu doo woon téeméeri nit du sotti buñ toogee waxtaan ñu ne kat ñii ñoo war a seq liggéey bi ñu présenté leen ko parce que it man mi koy jiite kii nga xam ne moom moo nekk secrétaire général bu fi indiwoon beneen secrétaire général mën naa am du ma mën a def ak moom Abdou Fall mii def trésorier dem 11h guddi laa ko laa laa ko fekk këram yóbbu ko sëñ Cheikh Abdou Laat Ba euh, euh, Gaynde pour ñu Gaynde Fatma pour waxtaan ak xëy na bu doon keneen la du ma ko man kon man ñi may àndal damaa jàpp ni ñooñu laa mën a àndal liggéey pour mu dox forcé wuñ ko kenn nag dañoo def élection majorité bi d'accord association amu kenn ku ciy liggéey ñu lay fay par weer c'est bénévolat la loolu moom yaakaar naa euh, wax ko association du mënul sax defal nit contrat parce que ni yaa amu ko bénévolat mooy liggéey ci association man Rasiat liggéeyuma ci di fayeeku tey nag bu ñu demoon ba société bi am contrat boo xamante prestation la ñoom waa société bi man bokkuma société bi ci dirigeant yi ñoom bu leen neexee ñu ne lii defal ñu ko parce que xëy directeur bi moom du mën a toog foofu di liggéey suba ak ngoon mu ne Ousmane lii gérer ma ko bu boobaa man dama ne da ngeen may fay du ma liggéey lii indi xaalis ba pare naan leen damay liggéey ci Mali Faro parce que man mën naa nekk ci leneen damay waxaale ñoom da fay li ñu may fay bu ñu ci d'accord ñun liggéey bu ñu ci d'accord ñoom liggéey ak man parce que directeur général bi mi ngi fi président conseil d'administration mi ngi ci man man kii mooy administrateur bi man membre conseil d'administration kese laa fa te douze membres ñoo fa nekk actionnaire laa fa mais loolu moom yaakaar naa leer na ab société association bi rek moo fi nekkal ñëpp société bi nag day business te bañ koy créer waxoon nañ ñëpp ku ci bëgg bokk nga bokk te agropole dañ faa balañ faa bëgg a dem balañ faa dem membre association bi yëpp man en tant que président association bi dina xeex ba membre yëpp ku ci bëgg bokk ñii ñu ubbil ñu seen ñi bunt ñu bokk ci société bi parce que dañoo bëgg li ñuy gagné nu gagné ndoo ko